suñ code électoral réglé nañu problème inclusion bi. tuddul Ousmane tuddul Karim tuddul Khalifa. mais mais même bu ñu dindi woon euh, le le de la déchéance électorale dès l'instant que Ousmane Sonko est condamné par contumace il peut pas. il peut pas se présenter da nga da nga bëgg di. non non non en fait en fait moo tax. mais mais contumace bi jeexul de ah, ah. nee na ce sont deux dossiers différents <laughs> xam na ni euh, nee na ce sont deux dossiers différents donc dès euh, l'instant man mun a je demande même pas ndax am nga euh, maîtrise en droit ou licence en droit honnêtement ñu ne la ñu ne la contumace mooy koo xam ni daw na munuñu ko jàpp gisuñu ko xamuñu adresse am et cetera yow pendant cinquante cinq jours <laughs> nga jël suñu force de l'ordre wër ko ne ko ñu laaj la li tax nga def lii nga ne non parce que. mais loolu laa lay politisation des procédures. waaw judiciaires loolu mooy indi problème. Ah. mais mais mais mais mais le fait est. il est condamné par contumace donc il n'est pas il peut pas. Euh, non loolu daanu loolu daanu am nga il a purgé. il a purgé la contumace. Voilà. à partir du moment il a été arrêté il a il a purgé. après là maintenant maintenant nag jaay doole beneen affaire et là on revient encore à l'état de droit. on revient à l'état de droit ils ne peuvent pas faire comprendre aux Sénégalais aux juristes du monde entier et de ce pays là que purgé wul contumace boobu. d'ailleurs boo defee bu ñu la pour juger en par par par, par contumace euh, verdict bi dafay ànd ak mandat d'arrêt donc fu ñu la seen. dañ la war a jàpp bu ñu la jàppee contumace bi. day day day day caaxaan la wax dëgg yàlla. mais loolu mooy principe bi mais sur le fait mooy même bu ñu bëggoon inclusion euh, Ousmane Sonko condamnation par contumace bi tax na mënul bokk. si si mën na bokk c'est-à-dire jàpp nañ ko su doon gisuñu ko boobu ba léegi mën naa ne xëy na ba léegi mënul bokk wante jàpp nañ ko loolu moom daanu na ensuite mi ci procédure yi. amul benn procédure boo xam ne dem nañu ba sës de ba appel ba et cetera cassation tout donc actuellement euh, mi ngi ci yoon bi mi ngi ci course bi dafa bokk donc légalement lay wax juridiquement parlant et soo xoolee aussi euh, la sortie du procureur à l'époque la première sortie bi ñu waxee waxu euh, vol de portable dafa gaawantu Euh, rapidement apporter cette précision là di contumace bi ba léegi mi ngi am euh, j'entends aussi le ministre Madior euh, Fall euh, dire la même chose parce que ça les gêne quelque ça les gêne quelque part parce que le cas de Ousmane Sonko c'est un cas extrêmement difficile